sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi sa ridwani wa tamkin sayyidi saada mustamiin kiram xayyikum bi taxiyat islam qailan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen nuyu fépp waaye nag ñu ngi lay ziar baax a baax a baax parce que yéen dikkee leen nag li nga xam ni moom la C3S xalaatoon ci liggéey bi liggéey bi nag ñu ngi ko xalaat ñu ngi tàmbali fukki fan ci weeru octobre lañ daje indi ci ay xalaat indi ci ay waxtaan diisoo ci jël ci xalaat bu gudd a gudd bu yaatu waaye yaatal ko ci mboolem kilifa diine yi nga xam ni seen liggéey mi ngi màcc ci alxuraan bi ko defee nag xalaat nañ ci la toll weer lu toll ci weer bi ñu amee nag ci lañ daal di jóg dugg réew mi région yi ak département yi ak village yi fépp foo xam ni gis nañ ni kilifa ak diine nekk na fa dem nañ fa waxtaan ak moom ci sumb bi nga xam ne C3S sumb na ko parce que yéen amal muy delloo si waat mbirum alxuraan waaye yaatalaat naka noonu kon liggéey boobu mi ngi tàmbali ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre atum 2017 ba yàlla dogal tey liggéey boobu di jeex ñetti fan ci weeru juin 2018 loolu nag bu ñu ko nattee dafay toll ci juróom-benn weer juróom-ñaar ba juróom-ñett. kon noonu mooy li nga xam ne xalaat yi bi mu juddoo rek ci saasi ak jamono rek dañ ko daal di waxtaanee kilifa yi diine yëpp bi ñu jógee rek kon li ñu njëkk a def mooy bépp foo xam ni régions yi Sénégal yi ak département yi dem nañ fa ak kilifa yi diine dem nañu Ndiassane lañ njëkk dem mooy première partie bi jóge fa jël yoon woowu dem Tiwa dem dem dem dem Ndiassane dem Tiwaawoon dem Pire dem Ngaay Mexe dem Louga bi ñu fa jógee ñu soog a dem Kokki bi ñu fa jógee fanaani Bayti Seck xëy dem ci la Dramane dem Darou Mouhty dem Touba loolu mooy première étape bi nga xam ni moom lañ njëkk def. yeneen ci des yëpp nag noonu lañ ko toppee délégation yi nag ñu composé woon ko ci ay team ñu ko composé woon mooy. dafa amoon commission communication ak commission scientifique nga xam ne ñoom ñooy sàcc lépp jëm ci wàllu mbind mi ànd ak commission bi nga xam ñoom tamit ñoo yore wàllu finance nga xam ne maanaam président directeur général C3S waajaloon na ko ba nga xam ne amuñu benn gàllankoor ci tournée bi lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko def nañ ko ci niñ ko ci war a defee kon ba tey ñu ngi sant baax di gërëm ñëpp di sant baax di gërëm ñëpp ci taxawaay bi nga xam ni taxawu ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne C3S taxawu na ko ñuy ñaanal C3S ak mboolem liggéeykat c 3 ak mboolem ñi nga xam jàpp ci biir liggéey bi suñu borom dafa leen tawféex dafa leen mucc dafa leen teraanga ñu teewaat ko déwén te ñëpp am ci ndam ci asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziare baax a baax Mahamadan Dieng bokk ci cellule communication bu yaatal mbirum alquran ñu ngi sant bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi neen duggee ci liggéey bu màgg bu sell bi nga xam ne moom leen commencé woon te boobaak léegi am toll ci juróom benn weer jëm juróom-ñaar mu nekkoon ci taxawal bis bi nga xam ne euh, ci la nekk nii yàlla def ne euh, li ci doon xaar bu doon pour cent mën na doon wax ne à amee nañ ko lu kawe suñu njort donc loolu moo waral rek ñu commencé suñu ay kàddu di wax alhamdulilahi rabil alamin waaye di di di di encourager itam di remercier di féliciter ki nga xam ne moo amoon xalaat bi euh, di Alaaji Sëriñ Seck di sunu wajur euh, di koy ñaanal ginnaaw félicitation yooyu sunu borom defal ko tawféex ci mu dajeek itam barkeeb alxuraan fay alxuraan te mu dajeek sëg ndax euh, liggéey bi newul nekkul woon lu ginnaaw bi ñu amee xalaat ba euh, nga xam ne mooy xalaatu taxawal lu mel nii ngir gis nañ ni mbind mi ngi tàmbalee euh, di manqué ci yenn daara yi ñu bëree bëri defatuñ ko mu amal xalaatu def lii indiwaat bind ci ci biir réew mi yëpp. waaye loolu nag xam naa euh, doon na doon na lu yomb si moom ndax bu fekkee da nga nekk si biir daara ji nekk sax sëriñu daara. faay bu am si rek da nga koy di mën a xam xam naa loolu tamit bokk na ci li nga xam ne moo waral mu aman xalaat boobu doxal ko lam ci waroon dox lépp tim suñu borom euh, def mu euh, dénk ko xam naa moom jot gi du ko mu dénk ko benn comité boo xam ne ay borom yi xam-xam yu sell si nekk di composé wu si ay scientifique ay communicant ak benn cellule si communicant yooyu nekkoon si commission communication boo xam ne mu am am solo la bi loolu euh, yàlla defee loolu nag man ma bokk si commission boobu. Euh, bi xalaat bi amee commission boobu amoon comme liggéey nag kon dem fépp foo xam ne rek euh, région la bu nekk si biir Sénégal ndax xam nañ ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent ay musulmans lañ kon li gënoon na yellu mooy nga wër Sénégal gépp waaye wër gi nag la sa jiitu woon mooy nga dem si kilifay diine yi euh, ak ñi nga xam ne ay kër këri këri diine lañ wax leen xew-xew bi wax leen bëgg-bëgg bi sakku si ñoom ñaan loolu lañ njëkk a def ba nga def defee nu wër Sénégal yëpp. daal di def nag appel à la candidature si appel à la candidature boobu nag nu am ay nombre benn nombre participants benn nombre de participants bu xaw a étonnant euh, tolloon si 857 candidats ñu si sant suñu borom 857 yooyu tamit euh, ñu defaat beneen beneen beneen filtre si seen biir génne woon si 75 yàlla def nag bi ñëwee ba si jour concours bi nga xam ne moo nekkoon le 22 passé euh, ñett si 75 yooyu daal di désister maanaam daal di bàyyi ñu mujjoon def suñu concours bi ak euh, lu toll si 72 candidats 72 yooyu nag bu defee concours bu pare di leen tànn sept lauréats yoo xam ne tey ñoom leen andi si cérémonie de remise de prix bi war leen a jox seen ay neexal ñu sant bu baax a baax waa communication bi nga xam ne si laa bokk en particulier waaye tamit sant euh, comité bi yëpp di wax rek yàlla na sunu borom dajal nañu si ak ngërëmul Serigne Touba dajal nañu si ak ngërëmul alquran ak barke bi alquran barke Seexul Xadim kon foofu dañuy wàccee kàddu yi rek di wax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. anta bi ni'mati rabbika bi majnun